liggéey am solo yi nga xam ne def nañ ko si bile bërëb tax na ba centre de santé Annette Mbaye Derneville yokk bu baax a baax saal yi nga xam ne mën nañ si dalal wuy tawat yi. ñu ngi jóge woon ci fukk ak juróom-ñett ñu ngi ci cinq dañoo amoon jafe-jafe bu baax ci wàllu lal bi parce que surtout bu ñu ñëwee ba nawet jot dañuy sonn trop parce que malade yi dañuy bëri te duñu am fu ñu leen tekk lal yëpp day fees del ba dañuy teg ay chaise ci couloir yi di perfuser ñu ñu mënul perfuser ci couloir yi ñu référé leen donc jafe-jafe yooyu ba mu ko constaté ci laa dem ut idée bi projet bi muy construction boo xam ne day rapide te day dëgër. bu weesoo sax salle d'hospitalisation yi def nañ fi it ay salle de yu yu yees am na it benn pàcc boo xam ne tout tonk yi dong lañ ko jagleel liggéey yëpp nee nañ buñ koy xayma dugal nañ si lu tollook juróom fukki million si suñuy koppar. Euh, di leen wax rek ne la commune ah les adjoints le, le bureau municipal le conseil municipal si boppam dina def tout pour accompagner les centres de santé du Hann Mbaye rek mais y'a Ousmane Dramé ak beneen centre bi ñuy defar gis ngeen ne travaux yi ñu ngi avancé bu baax a baax normalement fin juin incha allah gros œuvre yi dina pare. ñiy jiite bi les centres de santé taxaw fas yéene jëmmal balaa yàgg yeneen i projet yoo xam ne lañ sa jublu du lenn lu dul fexe rek ba yombal paj mi askanu Wakaam. bi des euh, qu'on doit qu'on veut faire avant dans dix mois c'est l'unité d'imagerie mooy benn rajo numérique et éventuellement l'extension du nouveau bâtiment là pour aller au deuxième étage. ñoo ngi sàkku nag ci kilifa yi jiite réewu Sénégal ñu jàppale leen bu baax a baax ci bile centre ndax Wakaam centre bi dong la am te doomu aadama yi fi yeewoo lim gi dafay gën di bëri.